politique bi bi si ñi nga xam ne dañuy am ay kàddu yu waroo démb ak tey duggee la politique tàmbalee yàqu politique nag dafa laaj ñu génn ci ñi nga xam ne bokkuñu ci kuy def ci politique sa intérêt rek tax laa jóg fu mu tooyee rek nga dem dal fa man tey tey tey jii nga mën a jàkkaarloog président Macky Sall saaga ko suba nga jàkkaarloo moom di ko raayal amoo place ci politique et loolu il faut que à partir de vingt de euh, de deux mille vingt quatre ñooñu génn ci politique bi parce que ñoom ñooy taqal politique bi dafa laaj éthique du il faut faire le bilan des mensonges d'État Antoine Diome dafa taxaw jàkkaarloo ak sénégalais ni nous avons des preuves qu'il y a il y a des forces spéciales il y a il y a il y a ba tiital sénégalais yi booba léegi ñu ñuy libere ay des enfants innocents à peine sortis du sein de leur maman ñooñu terroristes yi baabu démb ba tey ñi ñuy libere gis nga ci terroriste ay enfants de 14 ans 15 ans 16 ans ay ouvriers ay menuisiers. ñoo xam dañu doon dem di liggéey daan seen doole voilà ñi ñi xam ñoom la ñu Antoine Diome présenté comme des terroristes comme des forces espéciales comme ñoo xam ne tey dañuy mën dañuy dañuy ñëw pour nungu nguur gi daaneel nguur gi ces mensonges d'état la mhm. dañ ko war a leeral donc une loi d'amnistie justement aurait pour effet que les que les quarante morts de deux mille vingt ñu passé leen sous silence perte et profit que les morts de 2023 les morts de 2024 70 morts environ diggante 2021 ak léegi est-ce que loolu kon ku signé boobu ku dem ci boobu jalo ku ko signé est-ce que boo tëddee di nga nelaw xam nga nag impunité pare pare dem ci loolu pour impunité impunité mm-hmm. mooy li nga xam ne moom mooy un grand danger pour un réew réew dafa jot gis nga même même ba ba gis Afrique du Sud ils ont traversé une longue nuit noire bi Mandela ñëwee dafa dañuy def réconciliation mais vérité def commission wax lii dëgg yëpp ñi baale doog a mën a baale waaye tey yow bu ñu reyee sa doom bu ñu reyee sa jëkkër bu ñu reyee un proche de toit te loolu ñu passé ko en perte et pour fi politique mhm. su boobaa loolu c'est un gage d'instabilité pour le pays donc il faut nécessairement que tous ces meurtres la moo xam nervi moo ko def moo xam force spéciale moo ko def moo xam force de l'ordre moo ko def moo xam président Macky Sall moo ko def lu ñu ñu ñu leeral ko ñu ñu leeral ko ba mu leer merci beaucoup li ci des na uh-huh. mooy ñu créer toutes les conditions d'aller ci élection yu leer d' accord dina xam élection yu leer. mooy. fichier électoral bu leer. Mhm. mooy tappale bi nga xam ne président Macky Sall da koy def ci liste liste électorale yi ñuy yi ñuy yóbbu ci bureau de oh, oh, waaw waaw waay waay waay calme-toi calme-toi calme-toi dans le Sénégal non <laughs> calme-toi calme-toi xam nga xam nga xam nga dañoo tàmbali ah woon jeex nañ ba pare jeex nañ ba pare eh émission bi jeex na émission bi jeex. non non le président c'est institution. mi ngi saaga de ça c'est de l'indiscipline. mi ngi saaga voilà parce que. mi ngi saaga ça c'est de l'indiscipline. dafa doon tàmbali naan dafa dafa doon tàmbali naan. dafa doon tàmbali naan dafa yaru. wante tu vois que. non non non mais un certain comportement. donc merci beaucoup. comment on peut parler à l'institution de la présidence s'il vous plaît c'est cette façon de faire la politique qu'il faut arrêter. Ah, d'accord c'est bon c'est bon c'est bon d'accord ça c'est de l'impolitesse. Ah, d'accord merci beaucoup merci beaucoup. boo ah, seetee s'il vous plaît président Macky Sall li ko perdre mooy ces mooy ces sortes de transhumants là. non tu as été conseiller quelque part. transhumant yooyu vous n'avez rien foutu là-bas. transhumant c'est ça s'il vous plaît. s'il vous plaît. si vous continuez wala bu ñu waxee bu ñu bu ñu waxee tuuti non non ma may ma daal s'il vous plaît xamoon non non dafa coupé bu ñu bu ñu waxee tuuti rek seen seen nature feeñ lii moo tax président Macky Sall lekk ci guut. non il faut ñu woon leen ni seen langage violent ñëpp mën nañ ko utiliser parce que dañ ko jombat na suñu bopp d'accord ko jombat na suñu bopp tout nga ne se voit nulle part s'il vous plaît s'il vous plaît Cheikh c'est ça donc ma daaneel ci ni merci beaucoup euh, euh, euh, xam nga xam nga xam nga dëgg moom dafa weex Mm-hmm. garaawul xoolal. dëgg dafa wex non temps bi temps bi parce que temps bi temps bi caractérise l'autorité de la République. de cette façon là Cheikh merci beaucoup Cheikh di la jaajëfal Cheikh di la jaajëfal yaa ko sori président Assane nga conclure leen après ñu ñu tëj. s'il vous plaît s'il vous plaît Cheikh Cheikh xam nga les transhumants. s'il vous plaît s'il vous plaît xam les transhumants. s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. je conclue j'ai été d'abord responsable des étudiants socialistes journaliste bi may def. se à dire boo xamul da a laajte d'accord ça c'est que euh, li nga xam ne tey moom le peuple sénégalais non loolu ma dugg dugg jamais dans un débat mhm. quelqu'un ñëw jaxase débat bi. non non non le laisser insulter pour. te bañ n'insulte pas le président. donc donc li nga xam ne. il faut li nga xam ne. soxla. te Pape mooy ci dem élection yoo xam ne dañuy leer. comme ça. leer bi mooy fichier électoral bu baax bi ñu jox ko opposition bi à temps. leer bi mooy président Macky Sall di ko conseil constitutionnel wax. entre le 3 et le 10 mu def fi le l' élection leer bi mooy. li nga xam ne ku ci nekk da ngaa nekk si sa li nga nekk ko koo xam ne da ngaa nekk ci voilà képp koo xam ne. Mm-hmm. sa bureau de vote ba ngay voté. Mm-hmm. buñ la changé. d'accord bureau de vote au dernier moment. pour jaxase élection bi merci beaucoup docteur Cheikh leer bi mooy. Mhm. ñu assurer ñu assurer sécurité bi suffisamment de matériel électoral. d'accord merci beaucoup de karange. merci beaucoup dans tous les coins du Sénégal. merci beaucoup ba les Sénégalais. Mhm. ñu delloo li nga xam ni ñoo ñoo ko moom. d'accord merci mooy ñu mën a tànn seen président de la République.